asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. oustaz dañ laaj lan mooy dugal nit ci diine. liy dugal nit ci diine. liy dugal jàmm bi ci diine mooy wax baat ñaari baatu seede yi mooy gëm yàlla akub yonentam ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu lii mooy dugal nit ki ci diine ji moo tax yàlla ne innamal muminuuna alladina aamanu billahi wa rasuli ca suratu nuur laaya 62 jullit ñi ñi gëm yàlla mooy ñi nga xam ni gëm nañ yàlla ko yonentam innamal muminuun alladina aamanu billahi wa rasuli loolu même ci sortu xujuraat laaya fukk juróom loolu la fa wax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadiis mu ni umirtu an uqaatila annaasa xatta yashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh xadis la boo xam ne xadis bu wér la buxaari ko muslim soloo ko euh, kutubul arbaa soloo ko ba des tirmisi xadisu euh, abu hurayra ak xadisu ibnu omar yonent bi ni digal nan ma yàlla digal na ma ma xeex ak nit ñi ba ba ni nangu ni yàlla rek mooy yàlla moom dong lañ war a jaamu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te man mii maay jaamu yàlla maay ab yonentam kon lii mooy lii dugal nit ki ci diine léegi nag dugal boobu muy mu ko ciy dugal parce que dafa day seede ni amul kenn ku ni jaamu ci dëgg jaamu ga di jariñ ñàkk jaamu ga di lor ku dul moom seede boobu shahaada boobu dafa am solo moo tax yàlla subhaanahu wa taala gën koo dëgëral ci suratu ali imran laay 18 ba mu ne shahida allahu annahu laa ilaha illa huwa yàlla ci boppam moo seede ni amul kenn kenn ku ni jaamu ci dëgg ku moom te yàlla dong seedewu ko de mu ni wal malaikatu malaaka yi tamit seede nan ko wa ulul ilmi borom xam-xam yi waroom xam yi ñoom it seede nan ko ñoom ñëpp parce que dañoo tegu ci yoon wax qaiman bil qist la ilaha illa huwa al azizu al rek mooy borom bi moom dong mooy kin war a seede ni mooy yàlla te mooy ku tedd ki mooy ku xereñ ki kon loolu nit ki da ko war a xam da war a xam bu leer naññ du ci sax sikki sàkka ni yàlla rek dama la seede ni moom moy mooy kin war a jaamu moo tax mu ni faalam annahu laa ilaha illa allah ca suratu muhammad laay 19 da koy xam ni yàlla rek mooy yàlla amul kenn ku fi ci dëgg ñu war koo jaamu ku dul moom wa ma min ilahin illa allah kenn nekku fi ku dul moom amul doom amul dara moo moom ñépp bind ñépp sàkk ñépp di wërsëgal ñépp soxlaalul ci kenn dara ma attaxada allahu min waladin wa ma kaana maahu min ilah amul doom te amul beneen dend bu fi nekk naan kii mooy premier yàlla deuxième yàlla kon yooyu yu mu war a xam la yu mu war a seede la parce que su fi keneen nekkoon koo xam ne day diiranteeg moom mbagg bu yàlla santaane nii mu santaane ñu naan diw yàlla la diw tamit yàlla la kon bu boobaa lu bari day yàqu kon bu boobaa lu bari day yàqu kon sax kii dina ni man ma may toog ci arash bi kii ni ko dama koy xëccoo yow kii ne nangam booba problème dina am comme ni ko yàlla nettali ci suratul Isra laay eh, ñeen fukk baak ñaar qul law kaana maahu alihatun alihatun kama yaquluun idan labtagaw ila dil allah la fasadata kon ñaari baat yooyu lañ war a seede ni kat mooy yàlla rekk mooy yàlla yonent bi mooy yonentam ñu ni kiikat ab jullit la moo xam nag dafa judd ci lislaam màgg ci encore reconnaître loolu automatiquement wala dafa dem ba mu yàgg mu ni dama bëgg a dugg ci diine lislaam ñu ni ko waxal lii ba pare ñu jàngal ko ko nag dañ ko ko war a jàngal waruñu koo sa rek bàyyi nii mais dañ ko ko war a xamal ci détail jàngal ko diine su ko defee mu mën a xam ni kat lii mooy li ko dugal ci lislaam kon lii moo koy tënk parce que ñëw ni laa ilaha illa allah rek simpalul de parce que boo nee laa ilaha illa allah mooy duma jaamu keneen ku dul yàlla kon duma def bokkaale loolu moo taxoon yéeféeru màkka yi xamoon mbir moomu ba tax euh, mu diisoon ci ñoom ñu dugg ci waaye waxoon baatu laa ilaha illa allah ñu leen leen wax leen laa ilaha illallah tuflixu wax leen laa ilaha illallah rek ngeen mucc mu jaral leen ñu jaamaarloog yonent bi di xeex parce que xam nañ bu ñu waxee laa ilaha illallah lim mën a soppi ci seen dund dootuñu jaamooti xeram dootuñu yaakaarati keneen ku dul yàlla dootuñu ñaan wërsëg keneen ku dul yàlla ah, seen lépp dafay soppeeku moo tax mbir mi yéemoon leen ñu naan kii moom yàlla yëpp mu bëgg koo def benn yàlla ajaal al alihata ilahan waxida inna hada la cheyun ojab kon lii dugal nit ki ci diine mooy seede ni yàlla kot kot kot mooy borom bi yonent bi dong dong dong mooy ki yàlla yónne ci xeet wii